nag mooy di jëm si social bi nga xam ne moom ñun moom lañu dénk te bokkut ñaar téeméer yi nga xam ne moom lañuy laaj murid yi mm-hmm. waaye dañuy laaj rek bokk taalib bu nekk rek lu man loolu nag liggéey bi nga xam ne moom lañ ci moom lañ ciy njëkk def mooy jumaa yi sëriñ sëriñ bi nga xam ne sëriñ bee soloon boppam daal di kaamil ji ci nekk te ngeen ci doon def liggéey bu am solo rawatina bi nga xam ne ni yéen a yéen a ngi toog jotaay bi yàlla nañu suñ borom yàggal te wéral leen Euh, ñooñu la ñuy faral di njëkk a taxawu ak ña fay nodd ak ña nga xam ne ñoo fay jiitu loolu moom weer wu nekk lay doon mm. euh, loolu nag bi biñ ci noppee nag li ciy desaat moom la ñuy taxawoo néegi doole yi ci wàllu dëkkuwaay ak wér-gu-yaram ak yu ni demee mm. social bi nga xam ne moom lañ doon def ci bisu koor gi mm. te waxtu wu nekk sa loxo di di ci jiitu ñi nga xam ne ñoo ko joxe woon lépp yaa nekk ca yaa nekk ca bopp ba yooyu ñëpp ñu ngi ci li liñ ci dépassé tamit muy liñ fay journal li jox journaliste yeeg saa si yéen ki doon jënd ak ku ci nekk li nga ci am lépp bind nañ ko famille bu nekk mi nga amoon ku ci nekk kat saakub ceeb cinquante kilo ak suukar ak yére boo mën a sol ci korite gi ak 2000 francs yoo xam ne da nga koy transporter handicapé yi tamit suuraale woon nañ ci ak yeneen association yi nekk ci dëkk bi muy handicapé yi nekk Darou Salaam ak ñi mënta wax ak ñi mënta gis ak ñi mënta dox am na ci nit ñi ñoo xam ne nii euh, seen seen comportement da ngay jàpp ne yor nañ lu dul jeex te social ramadan lépp nag ci jógewu ci ñaar téeméer yi waaye mi bi waxante ko mbokk yi Sëriñ Muntaxa waneeti na aw yoon ci kuréel gii di Touba Ca Kanam jaarale ko ci commission sociale xam ngeen ne waxtu wi saa bu accès bu ñu jub weeru koor commission sociale bu Touba Ca Kanam dina dem ci sëriñ bi laaj ko ndigal ci dimbali woy néew ju doole yi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bu sell bii du Touba sëñ bi jox leen ci ndigal waaye du ca yam nag da cay wan ab yoon soñña ca yëkkati lim bu bari ci ceeb ak dugub jox ko commission sociale xamal na leen kat lii ngeen di def man ngeen koy defal kon nag maa ngi ciy soñu ñëpp kenn ku ci nekk def ko yitte te xam ne ñii ñuy dimbali ay taalibe sëñ Touba lañ ñii ñuy dimbali yaakaar ci Serigne Touba képp lañ ko def kon képp ku leen dimbali rek sëriñ Touba nga ko defal sëriñ Mountakha Mbacké waneeti na aw yoon ci Touba ca kanam. مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا علي عبد السلام mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba waaye mbokk yi sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd a wér bu Serigne Mountakha yëkkatee lu toll nii fukki tonn ceeb fukki tonn pepp mbokk yi teg ko ci loxoy commission sociale ngir ñu dimbale néew ji doole yi nga xam ne mbokk ah, yaatu nañ lool ci dëkk bi de xam ngeen ne def lu baax bu fekkoon ne dañ ci retraité mën nañu wax ne si Mountakha war naa retraité def lu baax bu fekkoon ne dañu naan dafa doy. dañ ne sëñ Muntaxa li mu def ci lu baax doy na bu fekkoon ne def lu baax say at wala sa kàttan day tax nga wàjj ko xam ngeen ne sëñ Muntaxa mii du yëkkati lu nii te it nag duñ na gëlëm de saa bu commission sociale jógee rek bu ñu gëstoo gis ko te yemalu ko ci réew mi fépp la la ci boole kon nag mbokk yi kii mat naa roy mbokk naa toppandoo jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi la ñu bëri ñoo xam ne ci dëkk bi. yittewoo nañ ko leen taxaw lool sëñ Mountakha mii xam ne naka jekk waxtu jot nañ kon commission sociale bu Touba ca kanam ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg ci ànd waaye it ñu ngi tàllalaat loxo bokki taalib yi di leen wax mi ñi ñu war a dimbale de ëpp na ñetti junni bokk yi ñi bindoogum ak ña taxaw di xaar te yaakaar rek lañu am ci sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou jar naa ñaanal jar naa kañ jar naa toppandoo yi mbokk yi kon bu kenn xeeb bu kenn yéem ay ca murit lu waay am lu waay mën ñun ñëpp ñu ànd maase jàppale bokk taalib yi nga xam ne ni yitte woon nañ ko leen taxaw lool rawatina nag ci weer wu sell yi benn sànni la nga jam ci ay picc yu bëri bokk yi moo tax sëriñ bi commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital sëriñ Mourtala moom sëriñ Abdul Fattah ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi lay ñaanal nga yeggali yéene ji nga xam ne nii am nga ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci réew mi ci dëkk bi ñu ngi lay ñaanal yéene ji nga am ci jaam ñi ci taxawu leen Serigne Mountakha Mbacké yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga wér waaye yàlla na nga màttale bokk kon ay ca mburit bu kenn xeeb bu kenn yéem ku am ceeb ku am xaalis ku am suukar yoon waa ngi ni bokk yi benn la rek boo ko jaaralee ci Wave bi boo ko jaarale ci Orange Money boo ñëwee ca chaise ba ca xayra dana yegg fi nga xam ne mooy ñi ko gën a yittewoo mbokk yi jërëjëf Serigne Touba waaye sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg